mu dem léegi nag lan mooy nekk les nu mu tudd maanaam les conséquences mooy ju moment que ne taxaw démarqué wu na ci yeewi askan bi alors que sénégalais yu bëri identifié yeewi askan bi comme opposition bu taxaw di opposer au président de la république taxaw bu moytu campagne dafay wër di justifier au lieu de muy wër di proposer dafa nar a wër di justifier pourquoi mu posé acte yi pourquoi àndut ak yeewi pourquoi ñu démarqué wu pourquoi pourquoi et loolu dafa nar plo maanaam plombé seen nuñ koy waxee seen campagne mhm. mooy li xawoon dal aar Sénégal aar à un moment donné ci campagne du doon wër di justifier ni c'est des opposants mooy bañ leen ne makki ngeen àndal mooy bi ñu mhm. attaqué ñu riposté mooy bi ñu attaqué ni dafa benn deal entre Yewwi et Taxawu Taxawu Yewwi riposté via Ousmane Sonko mhm. li des seen campagne yëpp dañ doon wër di justifié wu taxawu danañ am problème trop ci campagne yi déjà gis nga xalifa déplacement yi ma mën à l'étranger mhm. gis nga kàddu yu Barthélémy Dias génnoon wax na diaspora 4 pour cent ngeen faloo leen foloo leen moo tax ñu bëri loolu doon leen poussé ñuy wax naan est-ce que xalifa est-ce que Barth en réalité travaille pour xalifa parce que boo xoolee depuis divorce bi mu am ak Ousmane Sonko ba ci dernière sortie acte yi Barthélémy Dias posé yëpp c' est contre-productif à xalif. amul dimbaliwul xalif non da koy yàqal. Mhm. moo tax ñu bëri doon wax ne est ce que l' agenda de Barth mooy l' agenda de xalifa est ce que Barth en réalité agenda am du écarter xalifa taxaw. suspicion yooyu amoon na parce que. Mhm. munoo wax ne da nga bëgg nit ki falu acte boo posé da koy yàqal. boo nee diaspora 4 pour cent lañ xam nga 4 pour cent yooyu ñaata pour cent lay dundal biir Sénégal. xam nga ñooñu ñaata soxna la ñu am ñaata yaay ñaata njaboot la ñu am ñu hmm. influent yoo xam bu leen ne gauche gauche bu leen ne droite droite la ñooñu nga taxaw maanaam soofantal seen poids leer na la ne xalifa moom diaspora dafa am dara loolu leer na hmm. mais bàyyil xel ne diaspora dernière élection présidentielle ak candidat yi falu yëpp diaspora wa njëkk wone maanaam signaux yi ni kii mooy fal président Macky vaggam bi diaspora la commencé je me rappelle très bien mhm. maay ci benn centre de vote di récupérer procès verbal yi mais xoola résultat yi njëkk a wadd génne ko favori diaspora la commencé ci la nit ñi ne ah Macky mii nar naa def maam nar naa def fi mu toll nii lu doy waat ci élection yi donc su fekkee ne moom xalifa amul chance ci diaspora loolu dana ko yàqal dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci élection yi mhm. léegi ban maanaam taxawaay bi taxaw am tey est-ce que moo nekkoon taxawaay bi xalifa Sall waroon am est-ce que moo ko gën a arrangé wala man dama jàpp ne xalifa dafa raté virage bu doy waar. Mhm. malheureusement Khalifa damay bëgg gëm ne li dal idée da ko dal amul chance politique yaa ngi imaginer yeewi continuer woon di maintenir ci bloc bi ñu nekkoon ñu écarté Sonko xalifa est président au premier tour. président au premier tour leer ni Pastef day wooteel Khalifa Sall au premier tour laa la wax. mais est-ce que confiance dana. non non bloc bi ñu amoon y avait confiance quand même. Mhm. bloc boobu bu continuer woon ba léegi. ñu jàpp Ousmane Sonko avant dialogue ñu jàpp Sonko xalifa xar tànk tubéem nekk ci tali bi di ko kaas di ci nooy maanaam ni Ousmane taxawee woon Barthélémy taxawu taxawee ko Pastef ak Ousmane Sonko nii. ah Khalifa Sall président xolam. score pharaonique lay gagné mais li nga expliqué nii est-ce que gënu woon jege ci Barthélemy Dias parce que amoon na benn moment Xuman wax na ko léegi fi ko euh, Guy Marius Sagna toll moom toll woon na fa euh, Ousmane Sonko. ko foo xamante fi ñu toll nii buñ moom xolam passif mënoon na ko mhm. comportement am ak Ousmane même calcul politique mënu ko justifier sincèrement Barth Ousmane da ko defal ci politique loo xam ni bi Barth bon c'est pas pour offenser bii mu juddoo ba tey nit defalu ko ko. même Khalifa Sall. non déggoo ma ne la ku dul ñi ko maam ku dul ay waajuram defaloo ko baat li mu xolal baat dafa toll ci ñu war a tànn la kandaara taxaw divergence dafa amoon au sein de taxaw loolu ñëpp xam nañ ko du secret li ni baat doxee tey loolu la Khalifa doon metre doon ragaloo Ousmane fal ko ba pare dootoo ko contrôler et beaucoup peuvent en li tax Khalifa réticent woon sur le cas de Barthélemy mooy ni Barthélemy di doxalee tey ak Ousmane mooy fal ko ba pare dootoo ko contrôler mm-hmm. Ousmane taxaw xar tànk tubayam pour mu nekk candidat quitte sax a violer texte wu wala charte yeewi yeewi dañ doon kuy maire dañ lay reconduire mm-hmm. soo am wàdde ni mm-hmm. parce boobu Ousmane bi ngi sóor ne ci ay bataay la jëm moom xeexkat la soxla particulièrement mairie de Dakar te baat doy na ko mu miser sur moom ñu tànn ko mu campagnal ko financer campagne bul fàtte leve de fonds ba yow leer na la ni taxawu bu defoon levée de fonds du dajale soom boobu financer sa campagne baatral la campagne bàyyi Ziguinchor ñu wëral la nga gañe ñu sécuriser post bi mooy l'appel sur l'affaire Ndiaga Diouf mm-hmm. milite leaderu yeew yëpp tribunal lañ daan xaar baar Ousmane ak Malick Gakou ñoo daan yeew ñëw jël ko këram yéeg dem di noyyi la maam Ousmane ko après mars 2021 premier accrochage gi moom ak ay force loolu c'était sur l'affaire Barthélémy maanaam taxaw ak policier ngay wax muy wax ba mu nooy lacrymogène ba risque yi ci amoon bi ñuy dugg ci magasin bi il a il ñu et d'ailleurs foofu jar na taxaw beaucoup de cadres de Pastef n'étaient pas d'accord ci ni Ousmane doon exposé boppam ci affaire Barthélémy beaucoup de cadres de Pastef n'étaient pas d'accord dañ jàppoon Ousmane était trop exposé ci l'affaire bi la avait pris trop de risques xeex nga mais yaa xayti ngeen taggante waxante lu ne mais même bu ngeen bokkatul ay nu mu tudd euh, ay intérêt politique mais saa yi na rafet. Mm-hmm. na rafet quoi munoo wax ni diw sama doomi ndey la jour bi ñu koy condamné tu tires sur lui jour bi Ousmane jotee condamnation la baat génn di ko di ko chargé. di ko enfoncé quand même munoon na gën a rafet. loolu amul lu ko mën a justifier sëriñ bi. Mm-hmm. alors que nit ñi yëgoon nañu Barthélémy ngi waxtaan ak euh, nu mu tudd euh, président Macky Sall loolu nit ñi yéeg nañ ko man bi ma ko benn député Pastef di wax boobu li yëpp éclaté gul te xamal député boobu su ma ko waxee mooy Ousmane Sonko yëg na ko mm-hmm. bi ma député Pastef di wax na ma ñi ngi waxtaan ay preuve la ci am bu concret du ma du ma nettali pour ne pas xama rek mm-hmm. lu leer naññ boobu yëf yi éclaté nit ñi yëgoon nañ ko mais na rafet politique du du du benn chapelle rek am nga droit prêcher chapelle bu la neex Barth a le droit de jugee xola waxuma la sax dem jalo bu ko neexee dem transhumé dugub biir benn loolu droit am la kenn du ko ko euh, nu mu tudd kenn du ko ko weddil mais na rafet munoo jaay nit ki na sama doomi ndey nga fii ngeen jaar du jour au lendemain nga jël loolu lépp et li nga doon defender yow gàtt sa gàtt sa combat jël loolu lépp di ko dénigrer na booy yi abonné woon ci sa page yooyu ñoo la votal c'est pas la première fois ñuy dund injustice Khalifa Sall subir na ko kon euh, bu ko Sonko subiree aussi tamit lu lu normal la mais bi ko xali mais bu ko Khalifa subiree ñoom Ousmane amul woon taxawaay bii ci xalifa ñoom bi ñu am ci Ousmane c'est-à-dire dëgg la xalifa dund na injustice bu metti mais pourquoi ñoom Yewwi ni ñu waxee woon ni noonu la ñuy xàcce maam xam nga Barth daf doon reprocher les leaders de yi d'être trop focus sur l'affaire Ousmane ne dañuy non ñoom du ñu groupe de soutien. mouvement de soutien. mais pourtant nit ñi mënoon nañ ko wax ci procès Barth bi yeewi taxawee bataay yeewi yëpp mais procès en appel sur l'affaire Ndiaga Diouf la ñaata jour lañ jàpp ay date pourtant nit ñi mënoon nañu wax ne mais ñun booy bii nga xam bokkul conférence des leaders mais kii du ñu mobiliser. Hmm. cest à li nga doon yow li nga doon woote. nit ñi di daje sa kër di wax di conférence de presse tey moom nga bañal yow ki nga wax ne sa doomi ndey te su bàtt xëyun bi sa leeral ni ñoom ils se sont mais bul fàtte ni avant démarcation bi dafa am benn mutisme dañ toog ay weer déggatuñu Barthélemy Diaz ci procès wu Ousmane Sonko yi wala ci ay activités kenn déggut Barth ñii naan anamu ñii di ko laaj ay suspicion am ñii naan maire Dakar ñii naan il est occupé ñii naan xalifa dafa amul jot quoi day liggéey waaw ñii naan xalifa dafa nekkatul président conférence lii la ndekete ñoom boobu ñi ngi waxtaan et li Barth joxe foofu comme ali bi yow kan la mun a doy Barth na la bi may dem di waxtaan j'ai été mandaté par Ousmane et Khalifa déglul de boobu Khalifa ngi ci jàmm moom waaye bi ko Ousmane Sonko di mandaté pour mu wax ak président Ousmane ci la dund lii pire moment de sa vie ba mu koy yebal ci la gën a dund jafe-jafe. maanaam ci la ñuy toj otoom. teel gàddu xëcc. ci lañ koy bloqué ci lañ koy pompe ci lañ koy dóor lakkir ma ñu ne boobu Barth moom mi ngi dem ci ndigalu Ousmane pour waxtaan yow loolu <laughs> yenu na maanaam maa la yebal ci président mais boobu man président ak may teg safara lii pire moment wul maam yi Ousmane dund digganteem ak Macky Sall la baat wax ne boobu Ousmane a nga ko mandaté muy waxtaan ak Macky loolu yenuun maanaam donc man daal li ma gëm résumé la mooy politique moom mhm. des fois tam foo foog nga am maanaam courage quoi comme le commandant bu yàggee hypocrisie lay na mhm. bu yàggee sax man waaye yeew yii man ñoom laay pointé du doigt sincèrement ñoom honorable munoo leen réeroog ñoom bokkutuñ ci groupe ba maanaam mhm. ci coalition bi ngeen baleen ci groupe parlementaire bi sincèrement pour yow na leen daal non na non quand même soit day ñaw mbaa mu dagg rek ku nekk dem mun ta ñaw statu quo moom mënut a am na dagg ku nekk xam fu mu féetee man lii laa gën. nañu tàqali ko. eng wala kët rek. waaw eng wala kët sax ah <laughs> waaye waaye benn statu quo loolu mënut a ne non yéen bokkutoo coalition ba. mais ñoo bokk groupe parlementaire ba ba ñoo leen di tàcc yow bu ngeen waxee kii léegi député taxaw bu jëlee. day tontu député passif bu député passif jëlee tontu député mm-hmm. taxu ñu ne ñoo bokk groupe parlementaire mm-hmm. quand même bu ñu ay sénégalais ñoo ànd moom wax dëgg yàlla nañ tàqalikoo peu importe nag ak <laughs> ce que ça va coûter lu lu mën a jur ko waaw Aliou waaw euh, sëñ Moustapha anglophone bi daf doon wax benn lu mm, wax mu ne appétit comes with eating mm-hmm. xam nga yàgg nañu toog wax ni mairie de Dakar lu gars yi fexe ba dugal la fa saa soo dugg seen pale bi dafa mel ni daf lay gën a motiver pour que ngay gis ne yow fële rek mooy sa prochain beneen étape bi nga xamante ni fa ngay war a toll. Mm-hmm. xaw